jërë ngeen jëf Adama Gaye bu yeggul ci maa waxoon waxeeti l'observateur ne nañu la mu def soriwu ko ubbil yéenekaay bi mbind mi ñu ne Adama Gaye da ko bind posté ko ci page Facebook am te muy wax ju ñaaw ju ñu jëmee ci président de la république Adama Gaye nee na wax ju ñaaw ji ñu wax président de la république te ñu fekk ko ci page Facebook am moom defu ko fa te dana porter plainte contre X ngir ñu teg loxo ki dem ci page Facebook am wax fa wax ju ñaaw joo président de ñu bind ca compte Facebook am l'observateur lool nangu na moo ko waaye ba mu koy def jubluwu ci woon di tooñ wala muy xotti wor may kenn yéenekaay bi nañu dafa mooy nag moom Adama Gaye nekkoon kaso fanaani biik ndax procureur bi nee na nañu ko tëj démb ma nga woon ca tribunal ba waaye dañu ko mujj delloo police li ñu naan retour de parquet moom la amee ay awokaam ñoo ko ko sàkkul le témoigné nañu ci guddi gi ci la ko naroon a inculpé mandat ko jël ko yóbbu rëbës ab awokaam di maître Khoureysi Ba moo ko ci génnee les échos nañu ay awokaam xettali nañu ko ba démb jàllul dafa njëkk a taxaw waat wàcc na ñetti publication yi ci page bi moom bindu ko fa enquêteurs yi wan ko ba wan ko numéro téléphone bi nekk ci page bi mu ne du moom ginnaaw bi ci lay soog a nangoo ni moom la waaye wax ji ñuy wax moom waxul lépp mësuta bind ne yàlla na avion bu njiit réew mi daanu yóbbaale Macky Sall Moustapha Niass Mansour Faye Aliou Sall ak procureur de la République Serigne Bassirou Gueye loolee mësu koo bind fenn libération nañu ginnaaw retour parquet de Sceaux di maître Malick Sall mu taane ñu ubbi ab information judiciaire ci mbir mi moo ko wax démb ci làmmiñu boppam ba teg ci ne lu mu ci góobe gar ko nee na bi dootu mayeti kenn ak ku mu mënti doon muy salfaañe ba muy sàllawlu institution yi ci réew mi ku ko fi defati dinañu ko lijjanti ak yow moom maître Malick Sall ministre de la justice soleil national nee na ñoo taxaw na temm ci protéger ak di waggar ci institution yi ci réew mi kenn dootu ko fowee la tribune mel na ku naan doon loo xam ndax njuumali mu di article 80 bu code pénal u Sénégal dekki na li mu suta dee bay di waxi pétrole ci réew mi jugati na yëral xët mu njëkk enquête dina kay coowal njubadi ak ndëngate moo taxoon ñu raxas loxob Frank Timis ci pétrole Sénégal bi ba mu set wecc waaye enquête dina kay nee nañu pétrole Sénégal bi ñoo ngi ci dégg benn waay boo xam ne tanewul Frank Timis mu di Eyong N'Diouk Adjouk Eyong ñu koy woowe woowee NG Ayok ab avocat la bu bari ay dugg-dugg ci mbirum pétrole ak gaz ku yàgg am ay problème la ak justice tëjoon nañu ko ci Amérique ndax dañu ko jàppoon muy mbubboo turu jàmbur tuumay balancement d'argent moo ko dàqe ca Ghana waa ji di NG Ayok enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne am na ñetti tur yu ñu koy woowee l'observateur xëy moom it mel ne ku ñu woo ci wax ji mi ngi ñuy xamal ne xel yu bari tàmbali nañoo tey ci prix homme de gi Africa Oil and Power joxoon président Macky Sall ak accord de partenariat gi am ci diggante réewum Sénégal ak plateforme kuréel goge nekk ci Afrique du Sud Jean Michel Seck jiite woon ni jamono société africaine de raffinage nañu ci l'observateur moom def na ñeen fukki at ci métier mi musuta dégg turu kuréel goge journal Sud Quotidien xëy na di jàngat ak a càmbar gise bi Ousmane Sonko njiital werantoo ñoom ñaar jamono ji Ibrahima Bakhoum dib analyste politique mi ngi wax ci journal bi la mu ca gis ñu gis ci xët mu njëkku Le Quotidien Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko di joxante loxo yéenekaay bi nañu ñoom ñaar àndandoo nañu ngir dalandoo ci kaw ñi fara ci opposition bi bu nuppi dem di wuy ji Macky Sall ci dialogue bu ñu woote Le Quotidien bind ne lii mooy front contre front frondeur yi ñu dàqe woon ci parti socialiste Le Témoin mi ngi ñuy wax lu tax ñu a dellu seen kër baay wax nañu it ne Barthélemy Dias ak Bamba Fall ñoo ngi def seen mooy jur jàng ji nga xam ne bu ñu ko réglewul ba mu féete boor dajalewaat njabootuk socialiste gi du yomb aji màkk yombul li koy firndeel mi ngi ci suur sursuwa benn ujaaj bu jigéen bu bàyyeeko woon donte doon màkk moo faatu ci biir avion bi ci diggante Ndakaaru ak Médine